tiis ak njàkkare lañ jébale boromam kii di Adji jàlloo mu ñàkkoon bakkanam ci jàmbaarloo yi nga xam ne amoon na diggante gendarme ak askan wa ndaw si lim bu takku ci ay nit daal dinañ ko gunge ci këram gu mujj. ambiance bu ni mel am mbokk ak jege ñaale am tiis gu rëy. xoolal xale bu ndaw bi 15 ans 15 ans a nekk avenir eh ñun dañ bañ a dara. koor boo xamante ne ça fait une semaine ngi ñu ngi koy door a jot naan dañuy def autopsie benn benn gaar ray ko lii nag dama bëgg kilifa yi dégg ko gis nga ko wax lii mu arrêté parce que jot na pour mu cessé rey yi bare naa te il faut que ça cesse. xale bi keroog bi muy dem sama boor la toog bi muy dem yëguma ko dama seeti sama doom ñëw fekk mu dem moo neex yàlla. bu weesoo loolu tension bi mu ngay woy diggante waay takku der yi ak askan wa nga xam ni ñooy yeewoo ngoro donc lii mënuñu ko bàyyi noonu il faudrait que ñu waxaat ak le président de la république cinquante cinquante la ñu bëggul fii il faudrait que mu seet ñi feneen fu mu leen jox li ñu la wax mooy dëgg. lii source de tension source de conflit lay indi pour toujours. askan wa ñu ngi wéy kon di sàkku ngir ñu bàyyee leen terrain boobu ñu tuddee Axe Maam Tamsir la ñu bëgg bu ñu sukkandikoo ci ñoom moo di tabax fa ab lycée.